jërëjëf euh, Gaoussou Koma yow nga bokk ci coalition euh, wàllu Sénégal euh, première question bi mooy wàllu Sénégal nan nga intégré coalition boobu ñu doog a wax ci wàllum élection yi. waaw coalition boobu nu ma ko intégré man dama nekk ci coalition bi ñu wax coalition jot na yàlla def coalition jot na ñu waxtaan ak waa Yewwi Askan Wi. Euh, Yewwi ak wa bi ñuy waxtaanee ak waa Yewwi ba la dernière minute jubóowuñu bi yàlla defee nag jubóowuñu euh, finalement ñu mujjee waxtaan ak euh, waa Wallu Sénégal yàlla nag def ñu déggoo ak waa Wallu ak waa PDS ak yeneen parti yëpp ci lañ taxawalee lu ñuy wax Wallu Sénégal. waa Yewwi nag yàlla dafa def dafa am koo xam ne sama xarit la te Sénégal yëpp xam nañ sama xarit la lu nekk def na ko pour man ma des ci Yewwi mhm. mu koy muy tudd le président Ousmane Sonko. Euh, waaye euh, man dama ne ko coalition bi fu mu jëm foofu laa jëm yàlla mujjee dogal ma des ci wallu ànd ak PDS euh, AJ/PADS ak CRD bi te wax dëgg yàlla ma ànd gi ma ànd ak ñoom. bu démb doon tey di nga si di nga si dugg ba tey. waaw jàpp naa ne bu démb doon tey sax duma ma ndax duma la ko nëbb avant ma ci dugg hésité naa hésité naa lu bari bari bari bari. ndax amoon naa ay proposition yoo xam ne yéew Yewwi eh, bu ma ñëwoon Yewwi du ma nekk di xëccoo yi dama doon ñëw rek leeroon na ma ne commune bu Yeumbeul noor eh, du ma fa yenn coono yi ma fa daj avant may ñi may jiital bu ma àndoon ak Yewwi du ma fa duma fa fekk waaye li ci gënoon a eh, neex mooy dama doon ñoom dañ ma doon jiital tamit ci département bu Kër Massar bi dama ko fa doon jiit waaye yàlla dafa dogal ne li nga xam ne proposé woon nañ ma ko fële te sama ngor sama dignité ak gëm gi ma gëm esprit de groupe yàlla dafa def na ne waa wallu dañ ma joxaat lépp foofu tey boo xool au niveau communal man maay candidat bi waaye au niveau départemental aussi man maay euh, tête de liste proportionnel conseil départemental bu Kër Massar ànd ci ak sama jigéen di ko remercier au passage l'honorable député euh, Fatou Sow d' accord léegi euh, Gaoussou Koma dina ñëw ci euh, yëmbal nord ndax xam naa ne nekkul commune boo xam ne commune buy yomb lay doon si yow léegi ñu wax ci euh, actualité politique bi doog a ñëw ñëw ci élection locale yi njiitu réew mi di Macky Sall fan yi dafa def benn sortie ci France 24 ak RFI moom daat nay wax nee na dàqul amnistie Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall yow en tant que homme politique lan moo ci sa xalaat ci loolu. waaw man li ma gis ci loolu mooy. di rafetlu li mu wax ndax Sénégal toll nañ fi nga xam ne ne eh, dañoo war a apaiser climat politique bi lu tax ñu war ko apaiser mooy eh, li fi xew le 3 mars gis nañ ko te jàpp naa ne 2024 élection yu nar a méttee méttee méttee méttee méttee si Sénégal. 2000 2024 élection présidentielle yi nar a ñëw. donc yow bu fekkee ne ne en tant que chef de l'État il a toutes les informations moom xam na ne 2024 bu fekkee ne daf ko bëgg a def. sans carime ak euh, Khalifa dina métti métti lool ci moom maintenant am na nag loo xam ne ne euh, no bu boobaa euh, tension sociale bi dina métti bu boobaa réew mi xiroo bi ak ŋaayo bi mën na metti te bu boobaa moom mën na si ñàkk lu bare bare bare bare ndax boobaa day dem il sera au front avec Ousmane Sonko te it boobaa toute l'opposition l'opposition dans son ensemble que ce soit Karim que ce soit Khalifa ñëpp ils seront dans l'obligation de soutenir Ousmane Sonko te Ousmane Sonko jël réew mi ñëpp xam nañ ne arrangé wul arrangé wul Macky Sall Sall bon ñu xam nañ ne mu demee ba lu tax orange Ousmane Sonko ara jor réew mi arrangé lu Macky Sall mooy que ne mag Sall euh, depuis mu falu ba léegi euh, nee na rapport yi nga xam ne ne euh, corps de contrôle yi jox nañ ko ko dafa bari te moom day xool yi muy génn ak yu muy yu mu dul génn Ousmane Sonko bu ñëwee loolu lépp dina ko leeral un deuxièmement Sénégal ñëpp xam nañ ne scandale yi surtout les scandales financiers daf fi bari lool lool lool lool ba ba jéggi dayoo loolu euh, usman Sonko bu ñëwee dina ko leeral donc ça n'arrange ça n'arrangera pas Macky Sall bari na bari waaye loo xam ne ne euh, dina dina poser problème bu fekkoon ne tey ku mel ni Ousmane Sonko dafa jël réew mi mais lii lépp man li ma si jàngat mooy euh, li ma waxoon jamono jële ci ginnaaw su sa benn émission ma ne Sénégal quel que soit président bi fi nar a toog. tant que l'indépendance li ñuy wax l'indépendance de la justice tant que soppeekuwul tant demuñu ba ci dëkk bi toll foo xam ne ne président lu mu am am doole du mën a manipuler la justice à sa guise. d'accord mais mais li nga wax ni Gaoussou Koma su ma la déggee. mooy yow euh, kon xalifa Sall ak Karim Wade. ñoom jot ci réew mi moo gën a arrange Macky Sall même su ma déggee sa argumentaire tamit mooy ñoo ñooñu buñ fi ñëwoon tey mën nañoo bañ a sulliwaat dossier yooyu. waaw non boo déggee ma ne la xalifa Sall ak Karim Wade euh, jot ci réew mi ñoo gën a ñoo gën a yomb ci Macky Sall Macky Sall xam na kan mooy xalifa Sall Macky Sall xam na Khalifa Sall fi muy egg ak fi mu dul egg maîtriser na les socialistes. mais mais mais Macky Sall est un libéral maîtrise maîtrise na euh, les libéro famille libérale libérale bi. donc xam na leen par contre Ousmane Sonko dafa ñëw et c'est un jeune bu ñëwee li mu nar a indi moom Macky Sall xamu ko. Euh, euh, euh, les occidentaux xam xamuñu ko les partenaire naturels du Sénégal xamuñu ko donc en ba pare boo xoolee en géopolitique képp koo xam ne day ñëw ku bees surtout les les investisseurs dañuy xaw a dañ koy xaw a ragal il faut que nga dugg ci appareil étatique jéem ma ko def nii jéem a def ba gars yi xam kii ban façon la jëflante yow diggante yow ci ay affaire pour mën la ñu meñ ndax Afrique moo toll foofu mais li mu doon wax sànq nga dog ma mooy euh, problème mu Sénégal problème mu indépendance de la justice parce que tey bu ñu demee ba le président toog ba mu nekk mu naan naa amnistie kii du ma amnistie kii dinaa defaat euh, revêtu des des procès de di wax di wax diw ça veut dire réel problème au Sénégal man dama yàgg wax ne gis nga tant que jëluñu le parquet les magistrats debout ñu am seen indépendance totale nga xam ne dootuñu nekkati sous la tutelle du ministère de la justice ministère de la justice bi loolu ñu éliminer ko nga xam ne ne tey les les les les les magistrats. dootul dootuñu amatu benn su benn benn benn benn benn boo xam ne ne dina leen dina leen fétu kaw lu dul conseil supérieur de la magistrature te conseil supérieur de la magistrature boobu Macky Sall génn ci génn ci loo comme ce qui ce qui est en train de qui se fait dans tous les grands pays du monde nga xam ne ne yoon justice mooy yor les leviers nga xam ne ne la séparation des pouvoirs ni ko suñu constitution waxee boobaa séparation totale des pouvoirs dafay am loolu tant que egguñu fa président beneen bu mën a toog mën na def ay crime financier jékki-jékki ne xaaral ma am na seen ñi pour def nii pour def ay jeu de calcul ay jeu politique. mais euh, gëstu comment euh, revenir aat ci li nga doon wax sànq ci mbiru kaawu Ousmane Sonko Khalifa Sall et Karim Wade mm-hmm. mais pourtant sénégalais ñoom dañu soxla koo xam ne tey bu ñëwee lépp lu jëm ci wàllum scandale financier dañ koy leeral ku mel noonu la sénégalais soxla te ma déggee ni nga waxee mooy mën naa bañ a leeree ci Karim Wade mën naa bañ a leeree ci Khalifa Sall mais bu dee Ousmane sonk mën naa leeree ci moom est-ce du ki Sénégal yi soxla mooy Ousmane Sonko. non en fait euh, dafa mel ni comprendre fi ma waxee fi ma waxee waxuma ne ne Ousmane Sonko mën na ñëw changer dama ne la Macky Sall xam na kan mooy xalifa Sall. c'est-à-dire. liggéey na ak moom xam na kooku fan la war a mën a yem xam na kooku fan la warut mën a yem xam nga tey Abdou sëñ Abdou Khadre yow ñi nga xam ne ñoo nekk sa entreprise bi ngay liggéey ak ñoom pendant des années nga ànd ak ñoom. xool koo ci mën a jox suba sa entreprise mooy gën a yomb gaw su commande bu jóge fële nga ñëw nga nga nga nga ñëw jox ko. aujourd'hui Ousmane Sonko euh, politique bi muy def ñëpp xam nañ ne nee na c'est un anti-système c'est-à-dire il est beaucoup plus radical que les autres. Hmm. te sunu njiit yi nga xam ne ñoo fi nekk. booy xool ñu bari si ñoom li leen intéressé du dara lu dul protéger les arrières maintenant bu fekkee ne tu le chef de l'État sortant la première des choses à faire c'est de protéger protéger te te te te te tes arrières te yooyu bu ko leeroon ne ko bu ko leeroon ne ko Macky Sall bu ko leeroon ne ko Ousmane Sonko day dina dina nangu lu bari bari bari mu teg ci loxoom amaana coow li mën na bari bëri xanaa xamoon ne dama lay jox benn ay révélation fii nga xam ko Macky Sall lu nekk def na ko pour jéem a waxtaan Ousmane Sonko. Ah leer laa la wax te man xam naa ci lu bëree bëri bëri bëri Macky Sall lu nekk def na ko pour waxtaan ak Ousmane Sonko pour jéem a xool naka lay waxtaanee moom duggante moom waaye Ousmane Sonko si boppam moo bañ donc bu fekkee yow da nga jiite ab réew. bëgg waxtaan ak sa benn opposant c'est l'un des l'un des opposants les plus radicaux nga bëgg nga gis na ne kooku waxtaan ak moom sax mënul nekk sa diggante moom même par personne interposée loolu mënta nekk loolu dafay day titloo le chef de l'État saa ba pas dire aussi que ne Ousmane Sonko moo gën euh, Karim oubien bien Ousmane Sonko moo gëm xalifa non non mais ñoom Macky Sall pour man li tax mu bëgg indi ñooñu mooy. dafa bëgg a dafa bëgg a chambouler le jeu politique actuel. reconfiguration reconfiguration bi la bëgg la bëgg la bëgg tegaat parce que fu mu nekk nii ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko ah nga wax mu neex la mu naxal la nga wax nga ñàkk a wax Ousmane Sonko moo fi jiitu ci moo moo moo mooy chef mooy chef naturellement chef de l'opposition. mais man beneen analyse bi may def mooy man dama gëm na ne euh, am na lu ma waxoon Ousmane Sonko bi muy dugg ci Yewwi man waxoon naa ko ne Yewwi du sa place. mais li ma gisee yëf yi di mu demee les choses se confirme fu mu nekk nii nag lu bari bari bari bari mënuguma ko wax damay bàyyi ba après les élections dinaa wax li ma war a mën a wax. da nga da jàpp ne bis mën naa ñëw Khalifa Sall trahir Ousmane Sonko. parce que non dafa am loo xam ne du lu ñu wax léegi ci rajo waaye Ousmane Sonko toog na ma toog man ak moom ñu waxtaan ci ndax nit la boo xam ne quand même am na fu ma teg te dina ma déglu day déglu samay xalaat. te dañuy waxtaan lu baree baree bari bari bari ak fu mu mënta nekk man ak moom du ñu réeroo ci waxtaan am na ay mbir yu ma ko waxoon waaye mbir yooyu mu ngi doo mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi di ñëw gis nga boo nekkee dans le champ politique sénégalais dafa am lu ñuy wax réel politique réalité politique da nga koy xam sa Seck bi muy àndax Khalifa Sall naan ko amul problème man maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa ginnaaw Idrissa Seck il savait pertinemment que ne 2019 Khalifa Sall du dem du nekk candidat te ñun bi ñuy bi ñuy après la ñuy doog xam ne ne ndakate Idrissa Seck xamoon na lépp xamoon na ne Khalifa Sall du nekk candidat deux ans ci ginnaaw xam nga trois ans ci ginnaaw en 2020 en 2019 da ko anticipé woon da ko anticipé woon cest à loolu mooy la ce ce qu'on appelle la réelle politique la la réalité politique maintenant loolu nag junj doy na borom lu junj doy na borom xel. après élection locale yi bu soobee suñu borom dinaa def euh, plateau lu bari parce que dafa am loo xamee xeeñ na am na si leader yoo xam ne fi may waxee yoon yi des leaders de l'opposition ñu ngi ci opposition bi juboo nañu ak Macky Sall ba pare après élection yi ils vont rejoindre Macky Sall. d'accord léegi euh, benn question ci euh, loolu pour ma revenir aat si pour ñu doo ko mën a jàll ci beneen léegi sànq bi ma la déggee da nga wax ne Karim jël réew mi wala Khalifa Sall moo gën a arrangé Macky ndax Macky xam na fan la Karim di yem xam na fan la Khalifa Sall di yem <clears throat> te xamul fan la Ousmane Sonko di yem te jàpp na ne Ousmane Sonko tey bu jotee ci réew mi <coughs> lépp lu war a leer dina ko leeral mais pourtant Sénégalais yi li ñu soxla mooy ñi yoroon réew mi ëllëg loxo yu man di dem kooku bañ a am état d'âme ci àllalu réew mi niñ ko yore woon ngir mu leer mais foofu la kooku la Sénégalais soxla xam nga tey am état d'âme ci àllalu réew mi. c'est diamétralement opposé et très différent de la chasse aux sorcières man li may wax xam naa ko c'est-à-dire nit ki mën na ñëw leeral li fi nekkoon lépp teg ci noo xamee ne ne. si yoon la. non seulement même bu dul sax ci yoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaye fexe ba Sénégal retrouver sa dignité sa dignité d'antan c'est-à-dire mooy que ne fexe ba Sénégal di nga récupérer alal bi tegaat réew mi ci raay. ba nga xam ne Sénégal demee du nekk ci ay coow loo xam ne jàpp kii sa genre règlement de compte bu méttee ah, méttee da nga jàpp ne def règlement de compte da nga jàpp ne bu dee Sonko mën naa def règlement euh, te politique boo fa nekkee surtout fi Macky Sall toll nii dafa am li ñuy wax protéger ses arrières Macky Sall coûte que coûte il va coûte que coûte protéger protéger ses yi wax nañ ko ne ko affaire troisième mandat bi moom bu mu jëmati kaw ah bon loolu kay maa lay waxaat beneen mbir bu bu bees tax américain yi xamal nañ ko ne ko affaire troisième mandat yi bu mu jëmati kaw donc Macky Sall troisième mandat moo la gën a xam ne ne pare na ci dootu ci waxati te mënatul dem troisième euh, troisième mandat léegi boo gisee lu tax mu soulever affaire amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall il sait pertinemment que ne mënatul préparer fu mu nekk nii un dauphin. techniquement c' est impossible. léegi ñaari mbir mooy am wàññi doole Ousmane Sonko éliminer ko politiquement. c'est-à-dire yàq dossier xaw ma après élection yi man li ma ci war a wax dinaa ko ci wax fi mu jëm mooy jàkkaarloo Ousmane Sonko éliminer ko politiquement dem ubbi yeneen front jàkkaarloo ñeneen ñoo xam ne ci opposition bi booba Ousmane Sonko il sera tout seul. mais mais est-ce que tamit jàppoo ne bu doon éliminer jéem naa éliminer Ousmane Sonko mën naa bàyyi Karim mu feex bàyyi Khalifa mu feex mais en même temps. mën naa am négociation si ñaari cas yëpp Karim Wade wala Khalifa Sall négocier ak Macky Sall mais tamit est-ce que tamit jàppoo ne élection sans Ousmane Sonko dina yomb ci Sénégal. day yomb élection sans Ousmane Sonko day yomb trop. man naa nekk. non ba pare day yomb sax du jafe parce que Ousmane Sonko dafa def ay erreur politique yu garaaw ndax dafa am loo xam ne électorat naturel li nga xam ne téye nga ko mu nekk un acquis en ñun ñoo jàppale Ousmane sonk Ousmane Sonko tey fi mu toll ñii Sénégal yëpp di ko coow ñun dañ ci joué bu bari bari man personnellement joué naa bu bari bari bari bari te fu ma koy wax te ko wax dugal naa ci samay million kenn jox ma ko dugal naa ci samay nit dugal naa ci samay mbokk defal naa ko campagne samay mbokk samay waajuru bopp sax wër nañ dem ci àll bi dem Casamance dugg suñu mbokk yëpp defal ko campagne ma gis ku mel ne le président docteur Abdoulaye ñaan ñàkk ci alalam bu bare bare bare bare bare bare bare bare rey boppam ngir Ousmane Sonko am lu mu am ma gis ku mel ni Bruno Derneville ñu ñoo doon jël jël avion dugg fay ay billets nit ñu bari bari bari fu Ousmane Sonko dem ci Sénégal ñu dem foofu man mii def naa ay tournée France Italie kanadaa def naa Europe bi Asie def naa dëkk yu bari ci àdduna bi avec mais propres moyens pour campagne la Ousmane Sonko ñun waa jot na tey Ousmane bi ñuy ànd Ousmane Sonko ñu bari bari dañ leen ne yéen da ngeen def kii amagul woon woon sax le plus fort reste di ànd ak moom ñun dañ ko bañ gëm ko ànd ak moom ci ngor waaye bi mu demee ba taxaw ba am li mu bëgg ma nga xam ne ne taxaw na dëgg dëgg dëgg dëgg lu mu def daa xëy xëy rek bañu ba fi may waxee yow nii loolu kenn mënu ko justifier moom ci boppam man laaj naa ko ko laajati ko laajati ko waxuma ci dara lu leer. te te te déglu ma rek te waxuma ci dara loo xam ne ne c'est convaincant loolu pour man erreur politique la mais beneen erreur politique bi mu defaat mooy bi muy génn ci coalition jot na dafa waxoon ne ne coalition jot na de. lu tax ma génn ci pas moom mais communiqué ñoom bi ñu def joxe nañ seen raison waaye dañoo dañoo joxe information comme quoi dafa am ñu nekk ci biir jot na ñoo xam ne dem nañu waxtaan ak Macky Sall loolu la ñu waxoon te ñu demoon waxtaan ak Macky moom xam ne leen Pierre Goudiaby Atepa la Aboubacar kamara mais tey boo nee damay génn si jot na parce que dégg naa ñoom dañoo waxtaan a Macky Sall yow nga delluwaat ci ginnaaw dem ànd àndax ñoo xam ne ñooñu ñun leer nañu ne am na ci yoo xam ne bëgguma ko wax ndax ma ko waxee wax ji day doy waaye leer nañu ne moom leer na ko ne ko leer na ma ne am na si ñoo xam ne tey ñi ngi ci biir foofu. yeewi te moom leer na ko leer na ma ne am na si ñoo xam ne ñi ngi ci biir yeewi ñooñu waxtaan nañu am ndékki nañu am ak sàll añ nañu am ak reer nañu am am na si ñoo xam ne man mën naa la limal lu tax ay détails yu ndaw ñoo tax ba fi may waxee ni dugguñu te moom xam na ko moo ma ko gën a xam. donc dafa jaxasoo ay donc waaw yow ay a Macky Sall dañ ko infiltré Ousmane Sonko bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax a baax a baax parce que mënoo woon xeex li suba nga ànd ak ñoo xam ne ne nga nga xam ne ne moo ne moo tax ma ne la donc loolu rek boo ko defee loolu politiquement yaa ngi rey eh, yaa yaa ngi rey sa bopp léegi suba ñi ngay àndal mooy ànd suppu kàññ ànd suppu kàññ mooy lan après ñoom yow li nga amoon as néew dinañ ko tas nga war a demaat liggéey beneen beneen liggéey bu bees li tànk ngay taxawaat pour mën a liggéeyaat pour amaat ak bi nga bi bi bi bi nga amoon fekk na ne béy wéy na mbuus. ko léegi euh, Gaoussou comment wax nga seen diggante ak Ousmane Sonko yéen waa jot ni jot na ak ni ñu ko jàppale woon ci élection présidentielle 2019 mais tey dañu gis ne même yéen bi mu séparé woo ak yéen ci la événement mars yi am. Mhm. te bu boobaa te booba amoon na ñoo xamante ni tey résister woon nañ ànd ak Ousmane Sonko est-ce que gisoo ne résistance boobu man na wéy ëllëg bu jotoon ñu ne ko Ousmane Sonko doo bokk ci élection. waaw mais xam nga résistance boobu résistance tappale la rek lu tax ma ne résistance tappale man problème mu mars yi ñun waa jot na kenn ñu ci taxaw man bokk man son ko xam na li may wax ndax ci rajo laay wax gëm naa ne ni ma ko taxawee taxaw ci fànn yépp bariwul ñu ko ci taxawee ci ñi ko wër ñooñu ñëpp bariwul bu amee sax gisuma ko taxaw ko ci fànn yépp laa la wax amul fànn gu ñu bàyyi taxaw nañ ko yuuxul nañ ko xeexal nañ ko demal nañ ko fi ñu ko de war a demal waxal nañ ko fi ñu ko war a waxal eggal nañ ko foo xam ne moom leer na ko mënu fa woon egg def ko yàlla tax ak sunu coloré tax ak sunu diggante tax donc bari na ñoo xam nga politique dafa garaaw gis nga gars yi boo ànd ñoom ci ngay comprendre lu bari li war a xew fii ñaari at ñoom xam nañ ko tey calculer nañ ko ba xam fi ñu jëm dañu ñëw approché la tout temps sachant que ne ñoom li li tax ñiy ñëw affiché wu ak yow foto wu ak yow dox ak yow xam nañ ko. man situation bi xew nii wallahi azim bi ma koy wax yenn usman Sonko ak kilifa yenn kii war na ñaari ab ci rek ban situation. non ànd gi ñu ànd ak yenn gars yi ak ni mu demee ni ko mbëddee dama lay wax benn cas Abass Fall bu Pastef damay tudd tur Ousmane Sonko Moustapha Sarré ak yeneen cadre Pastef xam nga rajo laa nekk tur ay tur laa tudd da leen di laaj man bi ma leen di wax naan leen yéen. électorat bi ngeen am ndakaaru Khalifa Sall dina ko nangu ci yéen mu neex leen ci nii paa ci nale yi ne ma non loolu mënta nekk ma ne ko dina ne naka lay nekkee mooy leen Barthélemy Dias fan yii nii la leen def teg na leen choc boobu waxaguñu sax ay waxi élection mooy sa coow lu njëkk la parce que j'avais vu venir bi ma gisee yenn paa yi ci laa ko wax moom Ousmane Sonko ma ne ko ñii fi ñu jëm mooy élection locale yii di a ñëw. mooy déstabiliser ko. mooy mooy élection locale yii di ñëw nar a ñëw dinañ la dugg duggante la. politique la am li ñu bëgg suba ñu taxaw fële moo tax ma ne la am na ci loo xam ne dama ko wax ak Ousmane Sonko wax ko ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci moom après élection présidentielle yi la lu bari bari bari bëri du leer ndax Sénégal dama jàpp na ne ñun ndaw ñu ñoo ko mën a defar Sénégal ay valeur ñoo ko mën a defar pas ay politique politicienne te réew mi dafa bëri lool lool lool lool politique ku tappale réew mi dafa bëri lool lool lool lool lool lool lool ay dil réew mi dafa bëri lool lool lool ay politique boo xam ne politique ku naxante la cest di dire Sénégal ñoru leen avenir senegal Sénégal ñoru leen ni réew mi di doxee ñoru leen seen i intérêt crypto personnel kese moo leen moo leen fi moo leen fi bàyyi d'accord